internetu casamance actu am nañ mbégte jàkkaarloo ak yenn te di leen indil reportage bi nga xamante ne mu ngi jëm si wàllu vaccination euh, pour xeex li nga xamante di coronavirus ba tax na tey ñu di grand dakar seeti ñi nga xamante ne ñoom fi yeew surtout ñi nga xamante ne mbas mi impacté mooy commerçant yi euh, rek euh, dinaa jox kaddu gi ñi nga xamante ne ñoom dan sen yëngatu ñoom ñoo fi daan citoyen rek pour moo xam xalaatam si vaccination vaccination bi nga xamante ne euh, mardi bi la ñuy door li nga xamante ne moom mooy campagne euh, sëñ bi maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. noo tudd. Euh, maa ngi tudd Alain Gomis. voilà Gomis gis nañ ni vaccin bu Ziguinchor egsi na gouverneur jot na vacciné wu mooy démb ñu ne mardi bi mooy la ñuy lancé li nga xamante ne moom mooy campagne de vaccination ndax yow pare nga pour dem ñàkku. oui comme euh, feebar bi daal mu ngi fi man pare na pour dem mar mardi su fekkee ne mën naa jot euh, ñàkku dinaa ñàkku parce que feebar bi mu ngi fii nañu dem ñàkku di porter masque yi di respecter affaire feebar bi li mu nekk ci dëkk bi. parce que mu ngi fii ci dëkk bi. voilà looy ñaax ñi nga xamante ne surtout am na ñoo xamante ne ba léegi euh, gëmuñu ni euh, feebar bi am na euh, te aussi mbirum vaccination sa nekkul seen xel loo leen di ñaax pour kenn ku nekk nga xam sa taxawaay nga mun a aar sa bopp waaye aarale ñi nga xamante ne ñoom nga bokkal si société man li ma mën a wax foofu mooy que chaque pere de famille daal na mu wax waa këram ñu dem ñàkku parce que feebar bi mu ngi fii ku ne mu taxaw fu dëgër. ak njabootam mu yóbbu leen ñu dem ñàkku loolu laa leen mën a yëgal bul kenn des ñëpp dem ñàkku parce que feebar mu ngi fi te feebar bi baaxul. rey na nit yu bari. voilà maa ngi lay jaajëfal. merci merci. Ah. Euh, mbokk yi maa ngi si citoyen ba léegi euh, di laaj seen xalaat si li jëm si li nga xamante ne moom mooy euh, vaccination mardi la ñuy lancé li nga xamante ne moom mooy campagne de vaccination préfet wu Ziguinchor moo koy def loolu nag pour rek woo Ziguinchor yëpp pour ñu dem si vaccination ba tax na rek tey fekki naa sama paa yi nga xamante ne ñoom tamit surtout ñoom la ñuy gën a woo si vaccination mooy troisième âge papa maa ngi lay nuyu. waaye maa ngi lay fay. Euh, noo tudd. Euh, man damaa tudd Malang Kasam. papa euh, lan muy sa xalaat si vaccination. man sama xalaat foofu est-ce que soo vacciné feebar bii du la jàpp. parce que vaccination. normalement su ne feebar bi la ñu vacciné suñu la vacciné normalement warul la jàpp. normalement warul la jàpp de. man loolu mooy sama question foofu. deuxièmement yeneen i réew yi yoo xam ne daal ñu ngi leen gisee ci seen président yi dañu vacciné yàdduna yëpp gis nañ ñu ne président bi vacciné na est-ce que moom mu vacciné na. vacciné na démb si mais gisuñu ko. pour ñu ko ci télé bi mooy suñu seede ñu ne population mais gisuñu ko de gisuñu ko waxuma vacciné wul mais gisuñu ko ñun journal du ñu raw dañuy seeti journal dañuy seeti débat yi dañuy seeti lépp ci télé en direct. mais gisuñu ko de mu ngi vacciné gisuñu ko su dee vacciné dañ ñu ne gisuñu ko loolu wóorul de. président demu jël vacciné ñëw ñëw fa vacciné sa population yow ji gisuñu la yow yaa ngi vacciné mel nii boroomu kere yow soo nekkee chaque ren kenn famille yi bon léegi ke warul deful yow deful yow yaa ngi koy def loolu mooy loolu. waaye pare nga pour dem vacciné wala pare nga pour ñaax. man pare naa pour vacciner mais il faut ñu gis moom mu ngi vacciné si dee vacciné ñu remontré ko ki télé ñun yëpp gis ko. ñun yëpp ñu jisi ko président suñu président bi vacciné na danga li ma vacciner kay danañu vacciner parce que su ñu ne lii lii mooy lii ñu yaa ngi feebar ñu ne kii moo koy faj ah su même Sankara Sankara doo naan Sankara mais su ne soo naan Sankara bi sa sa feebar bi dafay wér naanu ko loolu même alquran interdit wu ko surtout vaccination bu mel ni mais gisuñu ko moom mu ngi vacciné de dañuy dëkk nii rek Macky Sall vacciné mais gisuñu ko gisuñu ko de te te loolu mooy yoon ñu ji si ko mu ngi vacciné bu boobaa ñu ne yëppam ñu dina dina daw lay nekk waaw chaque an mu bu mu nekkee première mais gisuñu ko de gisuñu ko de pour moment pour les moments gisuñu ko. d'accord kon papa euh, sa kaddu buñ ko ji buñ ko déggee euh, dinañ fexe ñu wane image yi pour kenn ku nekk rek nga xam ne président Macky dem na vacciné mu ngi lépp feeñ na. parce que loolu mooy moom mooy suñu président loolu warul nëbbutu. moom su dee dee vacciné loolu waroon nëbbutu nëbbutu nii ñëpp ci flacramment Macky Sall vacciné na bu boobaa ah amul benn problème waaw mais gisuñu ko de waxuma duma vacciné mais gisuñu ko moom gisuñu ko de waaw gisuñu ko de man de man gisuma ko waaw man personnellement man gisuma ko waaw gisuma ko de waaw maa ngi lay jaajëfal papa. voilà man tam maa ngi lay jaajëfal comme que micro territoire bi man damay wuti lii micro territoire comme à Dakar ñu ñu ko def foofu ñu def ko fii ki Ziguinchor ngeen topp ñun dafa am lu ñuy waka lu ñuy waka ñu waka yet na yëpp dëkk ñun ñun tam loolu la ñun dañoo bokk Sénégal ñun yëpp mais micro territoire wu jëmul Dakar. Dakar kay moom capital la rek mais yëpp warul nekkee Dakar yëpp yëpp warul nekkee Dakar loolu moo jàkkaasee Sénégal loo laajee rek ñu ne la Dakar ñu ne la Dakar région yi du ñu am dara tous loolu c'est c'est c'est grave quoi région yi tamit dañu war a nekkee même bon mënuñu yëmmaake capital capital capital rek la mais au moins au moins au moins a ah, ñu am tuuti boo xam ne daal ñun tam mën nañu kii quoi mooy développement réew bi mais yëpp à Dakar yëpp à Dakar pour la ah loolu da andi coow de voilà merci beaucoup euh, voilà yi kon lii lañ leen indiwoon si li nga xamante ne moom mooy seen euh, reportage bi leen di permettre kenn ku nekk nga joxe sa xalaat si li nga xamante ne moom mooy euh, vaccination bi nga xamante ne door nañ ko fii si Sénégal waaye Ziguinchor tamit jot na vaccin pour kenn ku nekk rek nga mun a ñëw jël sa dose Sénégal yi nag wax jot nañ ci wax seen xalaat di leen ne rek mun ngeen ñu consulter suñu chaîne YouTube Casamance Actu TV waaye tamit mun ngeen jot bépp bi bàyyi ko ci Casamance ak àdduna wér ngeen casamanceactu point euh, pour rek am bépp information kon di leen jaajëfal euh, di leen jox dig